mbokk yi ak xarit yi eh, dañuy ñëw pour ma wax leen li ma doon expliquer sànq jëm ci wàllu système maanaam dafa am ñoo xam ni ñu dangereux lañ dangereux cim réew parce que bu ñu mënatut ci yow dara dafa am ci ñuy làqatu ngir xeex ak yow mu nekk ay li ñuy wax maanaam nit ki yor arme yoo xamante ni bii arme yu jaadoo tut la ñu ànd déglu Abdou Lahad Seck Sadaga kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko ginnaaw bi ñu woowee Ablaye Sylla déglu leen ko kàddu yi mu mais tey jii tey jii tey jii mhm. information yi ñu jot mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci réew bi doon ay murit yéen a ngi préparé pour jàppale murit yi laa la lu garaaw laa lay def tey sax police la yem <laughs> dig la yem ci koo xam ne ab ab liggéeykat la nekk Touba di liggéey ba am alalam musta yor benn responsabilité ci état jàpp homme d'affaires yi murid yi hmm. pour néewal doole yoonu murid jàpp homme d'affaires yi murid hmm. pour néewal doole yoonu murid yéen ngi ci la Omar Diagne waxoon ba tey mbokk mën nañu wax ni daanaka waxi dof la parce que dafa am ñoo xamante ni pare saay sax da ngay wax ne jaruñu tontu lu tax c'est parce que ay waxi dof rek la ñuy wax mais parfois boo bàyyee tamit ne doo wax ci ñi dara boo sàgganut tamit am na ñeneen ñoo xamante ni mën nañu dégg lii wax ji orienté leen parce que dootuñu dégloo xel xol la ñuy dégloo parce que ki dégloo xel amul problème mais ki nga xamante ni ki dafay jouer ci ngëm-ngëmu doomu aadama bi maanaam ci ki nga xam ni murit la mu présenté ko ne ko ñii de dañoo jóg ngir xeex yoonu murit ci naka la ñuy xeexee yoonu murit am na ku ñu convoqué kooka nee na murit la c'est parce que murit la rek ñu woolu ko mu ne yoon wi ngay xeex kon léegi kan lañuy woo ci réew parce que Sénégal réew la moo xamante ni ku fi doonul murit tijaan nga laayeen nga xaadar nga ñaseen nga euh, leneen ci biir réew mi ku ci ne am nga loo doon léegi lii logique bi waxi dof yi boo ko toppee mooy waruñoo woo kenn Abdoulaye Sylla li tax ñu woo ko dafa am ay mbir yoo xamante ni bi moo tax ñu woo ko ñoo ko woo xam nañ li tax ñu woo ko yow kenn woowu la yoonu murit nga nekk et pourtant kenn woowu la yaa ngi ak say gaynde yaa ngi ak say lépp mais kenn woowu la walla boog kenn woowagu la. parce que xaw ma luy ñëw ci kanam ak foo mën a bokk boo defee lu jubadi lu ñu jàpp ni jubadi la dañ lay woo déglu la boo ca doonu dara ñu bàyyi na nga dem boo ca doonee dara nag la cay xew yàlla xam waaye danañ la woo déglu la léegi nag li grave mooy dane dañoo am ay information loolu mooy wax yi nga xamante ne bi wax waxi sos la parce que moom sax war nañ ko déglu ko ne ko yan information am ak fan nga jëlee information yi nee na dañoo am ay information yuñ ne état bi dafa jóg ngir jàpp homme d'affaires yoonu murid yi loolu wax la yoo xamante ni bi waxi caaxaan la wax la yoo xam ne waxi caaxaan la képp koo xamante ni ki impliqué woo ci yëf yi ku ne xam na dégg na waajooju ay relation ak le président Macky relation ak première dame ku ne dégg na ko dégg nañ ay mbiram donc bu ñu ko woowee dañu ko war a woo ngir leeral léegi looy bañ mu leer mbaalu da ngaa xam ni yëf yi dafa am lu lëndam lu ne ci biir parce que pareen saay loolu la ñuy def xam nga euh, réew mi bu fekkente ni bii ki nga xamante ni mooy sa waaye woo nañ ko te mu ne ci njub xameewu ko lu dut ak njub sa xel war naa dal parce que nguur gi amuñu intérêt pour di taqal ku taqul nañ la ko waxee leer na keroog ba nga déggee procureur yëkkati ay kàddu dal dee wax muy Mbàkke Fall Sëriñ Mbàkke Fall defe naa moom la tudd le procureur wax ni xibaar ak fu mu mën a jóge nañ ko saytu wax ab aaya loolu war naa dalal xelu képp ku jàpp ni sa mbokk jub na waaye képp koo xam ni jàpp nga ni sa mbokk jubadi na dana la tiital parce que nag li fi daan dox lu ci bari daawul tegu ci siraatal mustaqim kon bu yëf yi di tegu ci siraata mustaqiim nar a tegu ci yoon ñu jubati woon ñépp danañ tiit parce que yoon arrangé wut képp ku dëng te nag yoon woowu faaw ñu doxal ko